Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. Salam alaikum. Alaikum salam. moom surprise la quoi. waaye kon gis nga sama kër de. ah ah lii nag dafa baax tout le temps sax nga fii ñëw di ma nemmeeku ah. booy Pod plaignant. xaw. defati. ba benn erreur bu ndaw laa def instant yi na la yàq sama àdduna yëpp. erreur aventure laa am ak sama assistant <laughs> mu claté. aventure mooy franchement bëgg naa jigéen mais yaa ma gën a bëgg jigéen mais xanaa du yow yaa ma doon yedd même pas quelque temps. si c'est pas le moment de rigoler si xam la moo am instant fu mu toll sur le point de perdre sama ñaari jabar yëpp déggoo li ma la wax dama claté. mais Eva yëg na ko. Mhm. et c'est bi ma bàyyi sama kër mënoo sax imaginer ba benn erreur bu ndaw te yàlla xam na ni regretté naa ko ba ma ko defee benn yoon laa ko regretté. non xoolal coojiwul mën naa dem sa gaale wax ak sa ñaari jabar. grave booy dañ ko gérer.

j'ai préféré ma génn kër gi parce que xam naa ne su ma génn dinañ génn kër gi. déglu ma instant yi da nga énervé moo tax ngay waxee ni une chose est sûre Marichou ak Eva dañ la bëgg loolu ñëpp xam nañ ko man naa fa dem wax ak ñoom te ñoom rus nañ ma dañ ma déggal léegi xam nga nu def defal nànk nga dal fii sa kër la mun nga fi toog heure saa su la neexee amul benn problème léegi dañuy dem si biir nga sangu changé yére andaale nga yére bi nga ñëw. léegi ñu dem après mën naa la génneel yére boo sol mais instant yi defal nànk nga tey man naa fa dem wax ak ñoom hmm? waaw histoire bi amoon fii ci kër gi coow li bari ma xam ne su ma bàyyee kër gi noonu dem ñibbi wóorul moo tax mën a naa fanaan fi bësët pour mën a sécuriser kër gi bu ko defee euh, Marichou ak euh, Eva ma ñu génn kër gi. ndekki nga. ndekkeegu ma moom laa bëgg jënd nii. mën naa wàcc nuyu la rek bala may jënd ndekki ma jëndaale la. waaw lii nag yaa mooy toppandoo léegi de. toppandoo. ah moo yow toppandoo maa de ah. non ñaar la yow pompe nga yore. man bii mooy poudre magique sourire. bii dafa baax ci ay bëñ da koy weexal tal tal ba pare di ko dëgëral ba pare yaay sentir xet bu neex bi. Ah, waaw am noonu. dafa sedd sax kii dafa baax ci yéen tuxkat yi. Ah. parce que os os yooyu ak. waaw waaw lañ lañ yi ne ca sa bëñ yi. dëgg yooyu da koy dindi ba mu set. da nga koy utiliser parce que sa bëñ yaa ngi commencé kabayaat. waay waay waay ça va naka mu. ça va maa ngi nii da nga teel a ñëw. waaw pourtant fii laa fanaan. dégg fii laa fanaan de. <laughs> fii laa fanaan nekk moom moo laa fanaan comme démb ak histoire démb bi coow léegi yooyu mën naa fanaan pour sécurisation kër gi. Eh, noppil waa yow nga naan sécuriser yow kon damay yow fi nga fanaan yow mais kan moo jox autorisation nga fanaan fi yow sécurité. kan moo la sécuriser loo kër gi laa wax ah. néeg moom nga fanaan. waaw yow moom la ngeen bokk da ngeen bokk groupe. groupe sànge ban groupe groupe sàcc laa wax ah. yow da ngay dugg kër jàmbur nga fanaan fa kenn joxul autorisation benn ñaareel bi yow néeg bi nga fanaan borom fa nga dina fi fanaan et puis jabaru jàmbur nekk ci kaw ngay bëgg a fa loolu pour lan la. pourtant teel naa tëdd de. il waaye boo teel tëdd nooy def boo teel tëdd nooy def kan nga tàggu ngay dugg fii di fanaan hmm? kan nga tàggu. kenn damaa gëmantu rek mën naa kii rek gérer rek fanaan foofu ba suba rek. moo rek xoolal yow yaa ngi bëgg a ëppal dégg nga li ma la wax est-ce que xam nga li nga def lan la tudd lii violation de domicile la nga yor kër jàmbur nga fanaan nga kenn yëgul ay fi yow ju ko yokkataankat nga yore loolu nga yore mais dama war a woo police ñu jël si la sax parce que yow nga def maa ngi jégalu de ah? nga yaakaar ne tëppeel mais nga def fi lépp yow ma yaakaar naa fi nga fanaan di lem loos ni mel ku feebar. baal ma kër gi que ça soit la dernière fois nga fi sax dugg te doo woote man dem bi fanaan ay néeg moom moo laa fanaan kan man fanaan doo ma jëndaale la pexe ma ko. xoolal jëndal nen au lait xool eh eh eh foo déggee na nga ko jaay nit ñi dégg nga ma la. ma tàngal bopp naan. aywa ci biti nga naan nga dem may nga dégg ko.

Deux. No baax na baax na baax mais booy. waaw. Nabou maa ngi ko gis sa nekk lu tax waxoon woon ne mi ngi fi su ma xamoon ne mi ngi fi kon du ma fi ñëw. booy Nabou dafa am complication grossesse am. lan. keroog da doon génn si toilette yi am ay saignement. saignement. ma jël ko yóbbu ko hôpital médecin bi nee ma dafa am grossesse à risque. te il faut que mu avorté sinon bakkanam xaj na si. mais yow tu comptes faire quoi. man xam nga lu mu bëgg mooy mu avorté mais xam nga Nabou dafa dëgër bopp mais après naa jéem a xool lu may def mais pour l' instant xoolal nañu régler sa problème ba pare c' est plus urgent. mais booy lan lañ def yàlla ma yow. booy yaa ngi may wax question boo xam ne chaque jour. ma laaj ko sama bopp mais lii daf ñuy jàngal àdduna rek daf ñuy wan nekk àdduna doylu la loo munti am si àdduna da ngay doylu te jigéen yi kenn mënu leen jeexal parfois nga def benn erreur une minute boo xam ne que dina la yàqal sa bonheur pour toute une vie booy foog ñu jàng doylu respecter suñu jabar yi respecter suñu soxna yam si ñoom.

non day baax booy. soo fi jógee nag xool. demoon sangu ji nga ñëw relax dindi sa air triste bi. gënal ji ko guerrier waaye. yëngal tuuti. Eh? waaw waaye ok si kanam. ok merci lépp loo mu ñëw ma téléphone. allo waay yaay non yaay dafa calme-toi yaay maa ngi fini, nii Kër Siir amul problème je suis à l'aise man maa préféré ñëw fanaan fini. nii rek waaw d'accord yaay dinaa ñibbisi dinaa ñëw ñu waxtaan mais pour le moment s'il te plaît je préfère rester ici ok ok d'accord ok. Allô, Louise Allô Oui, monsieur Diop. Écoute, dama bëgg nga xool biti lu mu fa Je nga dajaleel ko fay ko je dafay bàyyi. ah bon. tu fais ça immédiatement. ok d'accord. voilà. ça marche. au revoir. ok. diploma Qui ne C'est pas pour... Euh, contrôleur fiscal la contrôleur fiscal la mais mon bon mu ba mu nekkee débuté après faut mettre l'eau en suspendé. le truc c'est que en fait je ne vois aucun dossier de fiscalité fii ouvert. xoolal attends lii discute dur normalement c'est son ordinateur aussi il y a des dossiers cachés ici hein. Regarde. Il y a le nom de Serudio. C'est mon père. Mmh. Pascal. Badara Sissé. Charles Lopez en plus. Lopez Bay Moussa Seck. Adama Ndiaye. Non mais regarde, liste de vous goudou tëj. En fait, ils appartiennent tous à une organisation, mais en tout cas ça sama papa moom chaque année de doon ça Saint-Louis nee na dañuy am fi ay AG xaw chaque année daal dafi daan ñëw mais kenn mësuñu expliquer lan la mais chaque année mi fi donc c'était des sessions annuelles. moom lii dañuy tardé fii nan def tout pour xam loolu moo leen indi woon fii nii. Diop ci la ñu nekk ça, c'est l'année de décès de mon père, 1992. Mhm. Le 12 janvier, à mon une assemblée extraordinaire. Parce que d'habitude, ils se réunissent en décembre. Mhm. Ils se sont réunis en décembre 91. Ils sont encore réunis en janvier 92. Sauf que pour réunion, nous sommes convoqués, mais sauf que 92, convoqué une Papa et sama papa mu ngi dee février 92. Mais c'est quoi le rapport avec li ñuy waaw c'est quoi le rapport mais ce qui est sûr moi que li ñuy seet yëpp mu ngi ordinateur bi et je préfère mieux yóbbu ko à tête reposée nañ découvrir lan. gaynde waaw ah, mais foo ba yàggoo fi. yàgg naa fi keñ. ci loo ne. maa ngi ci jàmm tunnel yi embouteillage yore yaa ma gën a xam. ci loo ne nga bàyyi nag yenn saa yi nekk ci lu leer dund. tunnel bu ñu ko bàyyee ba dina baax. bàyyi ñuy dugg rek <laughs> sinon lu bon. saa leer nga de waaw lépp mais saa yaa ngi am jàmm de ku lay toppatoo Chab. waaye maa ngi gàlle Chabi. yaa ngi kan. maa ngi gàlle Chabi. fa nga dëkk. bien sûr. Alaaji da ngaa sëy. mais on est en 2017 boy. léegi jigéen ñi ñooy takk góor yi yóbbu leen seen gàlle mais noo mën a dëkkee ci gaale boobu yaa ak ak ak Papa Chabi. man ak paa bi ay keus gaañ lañu léegi. dañuy toog premier di seetaan suñu ay film nekk ci jàmm. kon ñu ne ci yàlla jàmm yi jaar foofu. <laughs> xam nga paa bi dafa feebaroon temps yi passé. ah bon. moo may ko deret je lui ai sauvé a vie sa vieux koo jalis. waaw ah, gis nga. <laughs> ci sama yaa ngi ndax naan de. oui na ci yaa ngi alors yaa maa ngi waajal nag. lépp tranquille. waaw lépp nice ñu ngi préparé nank nan kon jeex na léegi hmm. yow foo des la def.

yaa ma gën a xam. waaw looy pause nii. fils cinq millions laa la waaw. cinq millions aajoon damaa bëgg nga xam ne rek ni cinq laa jox sama gaayeen nga trop mais xaalis sama xarit la sama doomu ndey la. daf maa jege. xaalis du ñu boole. te damay bañ mu boole ñu. xaalis du ñu boole. kon jeex na juróomi takk la de. yow amul confiance rek. gis nga. Diouf. respecté naa sama kàddu nag damaa bëgg nag bu ñu kenn dégg. non yow gay nga. bu ñu kenn dégg rek kenn duñu dégg xaalis duñu boole. kon jeex na vraiment sama doom day nga yéene naa la nga def leen lumière bu neex nag. non ngeen doxal leen damaa bëgg nga dund loo xam ni la Badara ak Oumou Souare dundoon laa bëgg ngeen dund ko ci lune de miel. mais du ko dàq sax. Ah, bu ko dàqee fii toj de parce que ñooñu soxoroon nañ trop <laughs> mais wuy ma. waaw mais juróom million ba li ñu nar boo naree dem Saalum loolu dafa bari. xanaa yóbbu yëpp. xam nga man dofuma sama faire looy def Sine un million cinq wala millions rek doy na 3 hum. millions ici.. Je dama un projet Je suis en man ak Chabi comme ça communauté de bien mu am base nous ne démarrer Tu as des xam mais avec des placements <laughs> non je suis la lune de miel ba temps la mais ce nga technique la yow technique la mais pas yow le temps ngay dem balaa demal balaa gars di tëj. man ma dellu agence bi en comme ça ñu jokkoo ci kanam. waaw mu ngi def noonu. waaw jox ci doom. yow soo amoon dama lay créer. création boobu nag balaa muy gën a neex. lii ma la jox teg dara. bu xam nga lii bu tegul dara normalement war naa teg dara baa nga joxaat ma ko. yow am nga 5 millions yooyu day jur. comme day war naa gaaw wëssin nag sonn naa de.

dama ko yërëm complètement que dama fàtte sax sama problème te le plus important pour man mooy Pod il reconnaît les faits tey jii nag Pod góor la te seytaane dafa bëri doole fu mu dugg rek lay yàq problème bi lenn rek ma si metti maag Pod ñoo bokk bureau ku muy doxee noonu secrétaire am la te kooku man maay chef am Pod ñàkk lu ma fayda noonu ba pare loolu yëpp siiw si entreprise bi xaw ma mi ngi sa kër xaw ma waaye soo demee ne ko pare naa si entreprise bi te dootuma fa nga ci tànk Eva bul waxee noonu lu déet dëgg la wax say wax dégg naa nga ne pot góor la mais na def fu kilifa pot bu bëggee takk ñetteel mais na ko rafetal na ñëw mu ne dafa bëgg takk ñetteel loolu yomb na mais pot daal daf ñu décevoir boo bëggee dégg dëgg siir oh xoolal instant bi comprendre naa leen bu a baax baax instant bi waxu ku mer rek ngeen fi wax mais lenn la bëgg ngeen xam pot la am ngeen da ngeen am ko surtout dans les moments difficiles ce qui fait la force d'une relation c'est la capacité à surmonter les obstacles te pour man obstacle da ngeen koy surmonter si leneen yow xoolal yaayu pot nu mu leen jàppee tey jii loolu bu leen ko yàq man daal lenn laa leen di ñaan lenn lenn lenn ngeen tëdd waxtaan ak seen ñegeen naay te jéggal ko bu baax xam ne que pot seen jëkkër la seen kilifa la même su dara sax ngeen jaamu si yàlla. man nag maa ngi ñëw dem te j'espère que lu mu leen wax. di si xalaat bu baax a baax danga wax ba ma jox la lépp bokk ak benn famille. ñoom ñëpp yam gëmuñu dara. li ñuy dund kenn mënu ko xam tey dañuy gisee bu suba ñu réeroo mën nañ xulloo ma foog ne man rek nga bañ te bu ma la soree nga def ma sa eroo duñu ànd te duñu bàyyi tey mun nañoo xulloo suba ñu gisee wàccu bo bis bu ne ñu laaj ma lan ngay toppee am na sax ñu naan ma gis nañ la keneen juboo hey girl stop trying nee nga balaa nga am jàmm rek yow foog ñu jotee sometimes I think girl you crazy yo ni nga may mer man noonu laa la bëggee mënuñoo jàppante mënuñoo bàyyi waaw moomu hmm? da nga dul tëdd ba suba xanaa sonn yow kay boo bëggee dàq sa nit wax ma rek moo gën moo gën a yomb. xam nga ni man du war a dàq damaa xam ne tey ak li ñu daj yëpp te suba moo nar la gën a métti. waaye tu as raison gëm naa ne bu fekkee gisuñu ba léegi moom man sama bët yaa ngi gëm sax. waaw. Oh. I don't know why I can't leave you alone. Tu es ravissant. Merci. Passe une bonne nuit. Mhm. Oui. Merci. Merci, pourquoi Demain, je temps j'étais mal, désespérée. je yaa ngi nekk ak man di me soutenir ak tay tamit journée bi ñu passé ensemble ça m'a vraiment fait du bien. Kiné tu n'as pas à me remercier pour ça au contraire.

Hey girl, stop trying me, yo Nee nga bala nga am jàmm rek yow foog ñu jote Sometimes I think girl you crazy, yo Ni nga may mer loowe man noon laa la bëggee Mënuñoo jàppante, mënuñoo bàyyante Mettit bi ñuy dund mel ni mooy sunu mbégte Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta love Ni mooy gangsta, gangsta, gangsta, gangsta لسه ماشي المسؤول كده siir xàmmetuma ko siir loo wax mu ne déet siir déggalul kenn siir lu ko neex rek la xam siir bu dee diine def naa ko ci moom bu dee yàlla def naa ko ci moom siir xëy xëy xëy xëy bëgg a denc samay loxo ni nekk ci lu ko neex siir daal gàcceel ma ci dëkk bi rek la bëgg waaye siir lu mu dugg ba sóoba jant sot naboo ko ci dugal nabu lu xew moom la waye inshallah allah nu may def ba nabu baye sir dina ko def ndax lu jinn jak rek nabu mooy njaag nabu mo net trop. Eh, ya da nga foog ne nabu moy njaag. yaa nak nga sa bop ya gis nga ni ngay toogee di xalat nan la nabu di baye sir non la yayam tamit di toogee di xol nan la sir di baye nabu sir duggu keur jàmbur eumbal domam taqale nday ak doom ba tey ji mu génnee ko kër gi xalaatal nag li la dal yow ci siir ak li dal temps lay ci doomam lan moo ci gën a metti léegi damaa bëgg nga jàppale ma gis yaayu nabu nan laay def ba gis ko. loo waxtaan na moom entre jigéen ak jigéen rek. dina nga jàpp siir. lu ko neex soo ba ngoon neex na la bañ mu jooy ba muy gone bi mu màggee jooyloon na la. tëtët ma xaama ni ngay waxuma ko mais man damaa bëgg nga jàppale ma gis yaayu nabu mën na nekk wala mënut a nekk yow tamit ma xaam loolu laa bëgg defal ma ko. Ah. ne o de n'a sonal dumuni parce que dem den la fana presque toute l'année eh loolu moko fi indi kat bayiko ci ay mbiri papam la nek kay mo xam ni muy seet baax effectivement, ça part. Ordinateur, vous le découvrir. Comment ça J'ai passé la nuit à éplucher tous les procès-verbaux yu nekk que chaque année nous avons une session pour nous réunir au finissant sans lui mais li que de 80 à ce jour il y a eu 4 sessions extraordinaires et 4 sessions extraordinaires y dafa am une incohérence en 85 par exemple un certain Amar Paye de ci liste présence session extraordinaire boobu depuis lors beaucoup ci benn liste de présence. Hmm. en 88 Badara Préra en 90 même chose en 92 maintenant même chose pour Seydou Diop sama pas ces quatre personnes nous ñeent un lien moins que depuis session extraordinaire bi ñu de présence association bi. xanaa que vous leen <sighs> non qui dans ce genre de secte nous d'arrêt. L'un rek moo lay mën c'est la mort c'est-à-dire tu les trahis et te tues. je pense que ces quatre personnes le rien c'est qu'ils ont trahi ce secte. c'est fou c'est vraiment fou j'ai dit. mais et tu sais tu m'as dit que ton père était contrôleur fiscal après vous m'avez été député là, qui qui vont vont changer figure-toi qu'un an avant lui élire ce pape tu tu l'as de beaucoup de ça a forcément rien. et ça le truc à découvrir c'est comment trouver des preuves pour incriminer ces gens. en plus de ça nous xam mais bonne la finalité la ñu am ku ñew dafa ni kër gi dafa am dëj ah ah man xam nga ni demb merna te mer demb yalla xam nañ ba ma juddoo ba legi mosuma mako méré pot méré na pot méré koo xamante demb yalla ji def sutura way mënon naa koo gaañ ah tamit li am amna ba nopi mënu leen ci dara man pot yag na ko wax pot bayil bëgg jigen pot bayil bëgg jigen bis bi bu amul won man dina rus waye na bu ko méré ni mu dem dëkk fenen xelam nek ci lenen mu def lenen lu ngeen cey ma li am amna ba nopi mënatu leen ci dara muñ mo fi sass ma leen ko ñaan sama digënté ak yeen ngeen muñ té bay ko mu dellu ci kër gi nek ak yeen lool laa dal laa di ñaan ma leen ko ñaan. Tafa. waaw muñ ba kañ. muñ rek. pot lepp luñ ko mëna muñal ñu ngi ko koy muñal. deug la waye muñal ko muy dem ci biti naan dafay njaaloo. dafa ñaaw dafa lan la fi manki fi ci kër gi lan. dara dara mam kay bakale ko japp rek so bu def ni yow tamit waaye su bu def nii tamit yow yi fi xale la yi fi xale la awa yow nag moom déglu moom wax la yaay mag damaa bëgg boo jógee nga dem ba ca néegam ngeen waxtaan pot li am am na ba noppi Balen leen ko baal leen ko te yàlla tax ndax lii moom ah ko dogal ah, rek comme def na li muy def ba noppi bu woon ko génnee kër gi mën naa def leneen yow yaay mag damaa bëgg boo jógee nga dem waxtaan ak mari. tonton waaw. mënoo ta wax dara lu may dégg soo motoon kilifa kon tey jii pot du def lii yëpp waaye bu teyee nga weex bu subaa nga ñuul. Hmm. xam naa lépp dama la bàyyi si biir rek. mu jël continué na yàlla. yow ki dégg wolof bi ah man day gàcce heureusement sax du feebar waaye bu doon feebar man ordonnance gàcce bi xam fu ma ko jënd ci réew. yow yaa dégg na wolof léegi subhanallah dund kenn mënu ko xam tey dañuy je te le cache pas, je regrette même d'être venu ici. Hmm. ndax tey man bi ma fiy ñëw foogoon naa ne je vais trouver quelque chose pour xam je pourrais reconsidérer estime bi ma amoon pour sama mais tey je viens je trouve des choses horribles loo c'est même pire que ce que je pensais gis nga j'ai perdu trois jours de ma vie yoo xamante ne xajoon na ci leneen mënoon naa ci def leneen. en tout cas man je veux pas comprendre franchement. excuse-moi si je suis égoïste mais bon trois jours yi ñu passé et man ak ça nous a rapprochés. si loo xamante ne nii xaw ma depuis kañ maa ngi siy am donc su amé du ma bëgg Qui jeex. Kiné je sais pas si tu t'en rends compte mais on n'a jamais été éloigné. Kiné li ñuy dund mooy les querelles xuloo yi juboo yi. je sais pas si tu te rends compte mais c'est ce qui fait le charme de notre relation. li ma bëgg man ak yow nit ñi yaa ngi koy dund beneen jigéen. yow nga bañ ma jël mais amul benn problème tu m'as vraiment déçu. Elena amul Elena moomoo yow danga ma gëmloo ay reef gëmloo ni ma dinga ma takk te nga nekk ci lu la neex si entourage buuju maan rek ngay deewee. waa doo bàyyi ba mu ñibbi ñu wax ci. amul dara li ma lay wax moomoo amatuñu dara li may wax li ma la waxoon balaa ngay dem Saint-Louis juguma si. bàyyi li ngay def su ma ñibbisee on en parle. c'est entre nous moomoo. gangster yu salte yi ngeen doon. Tu sais quoi Finalement, j'ai même plus envie de rentrer. Gangster, gangster, gangster, gangster love. Me boy gangster, gangster. out of my way, yeah, yo.